xale yi xoolal buuxante ba déet déet bu leen taalante du neex tey combat ko ka jogo ware moom boka tooni ware kër mbir ca dëkku lebu ya fa ñuy bayee ya Maguette Ndiaye boka am na lu def ñu ci lu neex rawatina yërmande ji ñu ngi koy sax Toneek Boka Toneek Boka Toneek Boka Toneek Boka eh xool mbooloo mi Tony indi waa ndeysaan Fallou Ndiaye si géew bi ñu ngi leen di siyaar an boka droite arbitre soufflé na ñu ngay lewaatoo boka bu parcelle tooni bu kër mbir tooni nag moom min na fii fii moom li ma xam mooy e door nañ ko de tooni door nañ la de boka da ko bëgg waaxu de tooni mbotti nañ la de tooni sal na ko tooni sal na ko Tony daan na ko oh ay Tony waay ay Tony waay eh Tony xool mbooloom waa kër mbir ndaw eh Tony ni daan waa kër mbir ndaw lébu yi eh Tony ay Tony Boka mbaa xam nga Tony ku mën a bëree ngi Tony mën a bëree xoolal lébu yi xoolal ma waa lébu yi waa kër mbir Tony bu kër mbir ndaw yaa ngi direct cey Tony da ko sol nag yokku ko ko jëli bu réer a ah, Tony waay xale yaa ngi waa kër mbir a ngi Ndiaye daa mën a bëre Tonné mën jam teeri kaay jam loo wax xale bi barke alxuraan bëreegul day kuntaroog ñun duñu bëgg a lekk kii wa kii bëreegul bëreegul de. barke alxuraan bëreegul bis bis bu loolu kañ lay doon. combat yi ñu yaakaar ni bu fasee ñàkk boobu laa yoon la te tey lay bëre. fa dina nam. ñëw waxal kañ nga fay ñëw ñu préparé ñu par dëkk bi yëpp génn préparé la. non dinaa ñëw Kayar. amul benn problème dina la xaar. yow xam nga dinaa ñëw Kayar. yow mi nga Kayar. barke alxuraan. ndeysaan Fatma Dia. Tony. Tony. maa ngi lay siifur réew maa ngi lay siifur. waaw lépp a ngi lay siifur looy wax. maa ngi sant yàlla jërëjëf Seydou Salah Salam di sant suñu ñaari waajur bu baax di sama yaay yàlla bàyyi ko ba sa kanam sama papa tamit yàlla bàyyi leen fi ba sa kanam ak kanam ban fekk suñu njëriñ parce que tamit dañoo sonn si combat waa kër tamit ñu ngi leen di sant di sant bu baax a baax a baax di waa war jaxal bu baax tamit. ni ñu bëree nga xam ni tuuti dañ Tony dañ ko conseil loo fa un mois gars yi ñu ngi may wax Tony bul xeex Tony téyel sa bopp boo bi bu la jumlawul mënuloo daan bilaay walaay boo xoolee damaa jël coup mais teewul damaa daw jàpp ka waaw du door dëgër li mu door doo dugg si biir géew moom jam bul dóor bu la joxee coup sax jàpp ka nga daan bëre moom combat bi moo tax nga ñëw indi bëre tey façon bëre bi ngay bëre doy na waar de Baougar man li may wax waa Sénégal mënaguñoo xam Tony mais après si kanam incha allah nañ gën a xam Tony bu gën a dem rek di gën a xam kan mooy Tony. mais Tony bëreegul. ana waa Kër Mbir Ndaw. waa Kër Mbir ñu nga fa rek. billahi wallahi Babacar tey xam ak ñaari kaar ñoo ñëw fii. waaw trois pono gi bii leen ma jox billahi wallahi wa taala lépp a jeex barki Seydina Mohamed. ah lépp a jeex tàkk wóor na alquran. te loolu day sant yàlla bu baax a baax tey bi may génne dëkk bi dafa doon jooy. waaw daf public boo xamante ni mënu ma la ko wax sama yaay da doon jooy tey bi may génn. mais nag ñuy santaat yàlla bu baax. di may sama yaay victoire bi xam nga di nuyu gars yi nga xam ne jàpp nañ si combat bi ànd doolal Tony Junior ñu ngi di ziare bu baax diaspora bi jàpp nañ si bu baax a baax waa Espagne jàpp nañ si Ndoura moo ne Espagne ak Paul Assane Fall xam nga Mor Lo ñoom Ismaïla jàpp nañ si combat bi quoi Cheikh Baye Fall. moo ko béré Ama Ndiaye tamit jàpp nañ si combat waaw waaye Italie tamit Babacar dañoo jàpp nga mayoon ma sant di bëgg rek mu neex la bi ku si mel ni grand bëgg jëpp jàpp a baax a si combat bi di nuyu Ousmane Dour jàpp na si Pakala kenn du yow jàpp nga bi bu Basper Diaw jàpp nga bi Gora Ndiaye sama grand bi jàpp na si combat bi waaw Italie jàpp na si combat bi Brésil tamit di nuyu ñaari yaar jàpp na Ama Yon Fontaine gars yi ñoom Serigne Thiam gars yi jàpp nañ si diaspora bi daal jàppale nañ tóo rawatina waa Morok waa Morok Cité Baye Fall Dangot Aare Gueye xam nga ñoom ñëpp jàpp nañ si combat nii ñëpp rawatina waa Kër Mbir Ndaw ji la waaw Babacar kañ ngay ñëw def émission boo xamante ni boobaa dañ lay préparé lépp Issa Boy li nga doon préparé soo Bisaay booy li la doon préparé sa bët presse Babacar ñëw. waaw non xam nga boobu si làmb. lu ñu affaire loolu moo tax rek ñëw. mais lëjum si làmb nga bokk lëjum bi woo état mu ñëw jàppale ñu. parce que tamit secteur boobu noonu commune Noto bi yëpp. ba jàll àll boobu yëpp àll mbooro bi. mbay rek la ñu xam. rawatina kër bi ñu juddoo. ñun xaalisu roose la ñu ngéntee xam nga mbëri dañ naa xaalisu làmb la ñu ngéntee. waaw waaw waaw ngénte ñun suñu papa loolu la loolu la liggéeyee ngénte ñun waaw bar di nga xam nga bàyyi fële xam loo baax waaw ñuy sant bu baax waa kër bi yow état bi si bu baax mbay mi ñu ñëw jàpp si yàgg tamit sama cameraman moom bu ma gisee damay kontaan quoi yàgg maa ngi koy a baax Ada Fass Tapha Mbeur ku daan bëgg na la Ada Fass Tapha Mbeur ku daan bëgg na la est-ce que say morom lañ ñooy say morom lañu Ada Fass ñun say morom la Babacar sept combats sept victoire foo ko bëree war ngaa bëree mën a bëree gars yi man xamul maam mbër moo xam ne day daan di gën a man xamuma loolu Babacar mais Babacar man combat jànk rek laa bëree barki alxuraan combat jànk rek kon gars yi dañ ma war a jël tam public bi mu ngi fi mbooloo maa ngi fi musuma delloo promoteur bi kon dama gars yi jël ñu bëre mais te bàyyi maytu ba Ada Fass taba mbër bëgg naa ku daan bëgg naa mais daal Babacar maa ngi sant waa tout ma kenn waa Kayar commune Rodo Goudiama commune Morola ne waa 100 pour 100 Morolan bi wax yi bëri woon na lool mais nan xam ne sport la quoi sport moo demee noonu. daal boo gaa ñoo bokk ndey ak baay làmb moo ñu woon rek mais jeex na quoi mais ñi ngi nuyu ñëpp tamit di sant gars yi Issa Thirane xam ci ñaa am di nga wax tamit làmb noonu la ñu koy baax di nuyu waa kër bi Babacar waa kër waa Kayar. waaw Kayar fa la préparé combat maa ngay nuyu bu baax Serigne Cheikhou Yacine jàpp nga si combat bi Yacine ñu ngi ziar ñëpp bàyyiwuñu kenn daal waa Kayar daal ñu ngi ziar rawatina Yacine waa kër maman Jam Teeri tamit ñu ngi ziar bu baax sama kër maam tamit ñu ngi ziar maam Ramata ñu ngi ziar waa Kayar gépp Miro Jos Libidor Jam Teeri ñu ngi ziar ñëpp daal Babacar kontaan naa lool Babacar jërëjëf Babacar ñu ngi koy ziar bu ñu ñu ngi leen ak doomam Alioune Badara tamit ñu ngi leen di ziare bu baax en tout cas daal Babacar kontaan na si yow daal. waa diaspora a kontaan naa si ñoom. jaajëf Babacar faa ma kontaan ci yow jaajëf